yeeg euh, xarit yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd beeg euh, seen chaîne télé bu jëkk ci wàllu caada di la 2STV di am mbégte lool nag ak bànneex ci dellu siwaat fas yéene àndaat ak yéen ci seen émission kër gi ni ñu koy defee saa su ne xanaa dellu santaat yàlla bu baax moom mi ñu may kattan ba ñu ñëw teew euh, julli sëlmal ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant sunu ñaari wayjur bu wér a wér gërëm sunu wasila waaye gërëm leen yéen ñi nga xamante ni saa su ne yéen ngi fësal seen cofeel jëmale ko ci ñun doore ko nag ci maladi te di ci hôpitaux yi ak ñiy weyale seen i jàngoro ñëpp ñu ñaanal leen yàlla fëgg seen bopp ñi caabi féeti ginnaaw yàlla génne leen dara bañ leen faa dugalati waaye saa su ne rek xel sunu dem ci way dawlu yi ñu di leen ñaanal yàlla atti leen ci yërmandeem jéggal leen seen i bakkaar leen ci àjjana yi gën a kawe ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kilifa diine yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal yàlla mu guddal seen fan wéral seen cër waaye bàyyi ci kanamu njaboot gi ñu yàgg jiite kilifa aada itam naka noonu ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar waaye tam di leen ñaanal jàmm di ñaan itam euh, projet yi yal na ko yàlla sottal yàlla def dal ci réew mi lii ñuy dëgmal te boobu ba léegi mu dooni wax euh, muy euh, élection yi wàllu législature yi ñu ngi ñaan ci kàttanu yàlla rek yàlla na ci yàlla def jàmm def ci xéewal ka nga xamante ni njariñal Sénégal lay doon yal na ko yàlla dooleel kattanal ko ba mu jël raw gàddu gi ñun na xamuñu kan lay doon waaye sunu borom bi nga xamante ni umpalewul dara xam na ko kon yàlla ñu yàlla di tegal ci sunu réew mi koo xamante ni ñun ñëpp dinañ ci mën a jariñoo euh, di nuyu di ziar waa réew mi yëpp di leen ñaanal jàmm sutura ak xewal ak i teraanga maa ngi leen di nuyu bu baax a baax waaye itam di nuyu mbokk yi nga xamante ni tàmm nañu génn moo xam réewu Afrique la ñu nekk wala réewu nit ku weex nañu yëg ne rek ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar waaye tam di rafetlu ànd bi nga xamante ni ñu ngi koy ànd ak ñun saa su ne eh, ci émission yi waa Cameroun nag dañ may woone ma dama du ma juum ba tudd Cameroun waaye yaakaar naa ne bu ma nee réewi Afrique rek bàyyiwuma Cameroun bàyyiwuma Côte d'Ivoire bàyyiwuma male Gambie gine gii ñu jege waaye bàyyiwuma Benin bàyyiwuma fenn foo xamante ni rek réewu Afrique la ba ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu kon waa Cameroun tey mention spéciale nuyu laa leen bu baax a baax rawatina sama jarbaat boobu suma juumul Fallou Thiam nekk foofu ci Cameroun ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp eh, di rafetlu ànd bi ak 2S waaye nuyu itam mbokk yi nga xamante ni ñu ngi taamu nekk ci dëkk yi nit ñu weex ñi ñoom ñëpp ñu nuyu leen ñaanal leen jàmm jafe-jafe yi yàlla buñ ko fa gis la leen tax a génn yàlla bu ci yaakaar tas waaye yàlla yàlla yàlla wommataat leen ba ñu dellu si siwaat ci réew mi ndax euh, dem jéem tale bàyyi gàcce newu ca te nag dem naa wuti naa aw ma damay ñibbi siwaat ci sama réew ndax réew Sénégal neex na nag réew Sénégal neex na de war na yàlla man nee leen waxuma dara lu nekk ci poos yi waaye am sa juróom benn fukk rek jënd sa warga fanweer suukar ñaar fukk ak juróom juróomi dërëmi naana daa di teg say bank ci mbedd mi ci bunt bi say xarit wër la nga xiim ku ko ñemee ci réewum jàmbur na ma wax rawatina réew nit ku weex kon Sénégal neex na ñu ngi ñaan yàlla na ko yàlla gën a yokk jafe yi nag ba nga xamante ni warga ak suukar dina wàññeeku itam yàlla na ko yàlla def góorgóorlu bi itam yàlla dénk ko loo xamante ni bu nammee warga ak suukar am lum ko jënde yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def ci sunu gaal mu gën a neex ñu dellu siwaat nag ci li nga xamante ni euh, mooy seen émission ni ñu koy defee àllarba bu nekk Eh, Sangomar maa ngi koy xaar xaw ma fu mu nekk eh, yii rek la may def waaye nag eh, Rama docteuru kër gi wala docteuru jeeg ji mu ngi ci plateau bi incha allah bu ñu demee ba ci sunu ñaareelu xaaj rek danañu àndandoo ak moom ci li nga xamante ni mooy sunu thème de la semaine waaye ñambaas ko itam rubrique bu am solo boobu nga xamante ni moo ñu ko indil di luy jaay ci jaba tey ñu demoon seeti soxna soo xamante ni day def wàllu meuble meuble yoo xamante ni boo ko gisee yéemu ci yàlla yaakaar ni bitim réew lañ ko defaree fekk booba. ndekete li ñuy wax Sénégal émergent ay doomi Sénégal ñu ngi ci seen ruq di ci yëngu ci jëfandikoo lu ñu moomal sunu bopp waaye liggéey ko ci biir réew mi itam tey ñaan yàlla ay doomi Sénégal yàlla nañ ko dégg ba consommé ko ndax olof Njaay ne na kuy wàllu yaan sa dëgga tëggul yeggaguñu foofu nag waaye dañuy daal di delluwaat ci li nga xamante ne ca la ñu nekkoon muy mariage yu intérêt bi li nga xamante ni moom la jigéen ñi dund ci biir kër yi jafe-jafe yi nga xamante ni moom lañ ciy jànkonteel waaye gennuk abandon gi tey moom laa ciy njafaan ndax ànd ak jigéen am ak moom njaboot fàtte njaboot ga xooloo njaboot ga ba njaboot ga sax daanaka ay kayit amuñu ko dem ba nekk magi jëm war a mën a jàng njàng mu mucc ayib waaye nag njàng moomu jafe leen lool ndax amuñu kayit te loolu li ko waral mooy meroo naag ndeyam bàyyi naa ko tranquille bu la doom jo woowee nga coupé ko loolu dafa nekk loo xamante ni lu yéeme la waxuñu doom joo xamante ni nag hors mariage la juddoo déedéet dañuy wax ci doom ji nga xamante ni dafa du juddoo ci kaw sëy ci fartas yàlla ak sunnas muhammad ba nga koy takk say mbokk ngi fekke ñoo ko ñaani woon ñoo ngénte njaboot googule waaye càggante daal na la ba jotoo wutal xale yi kayit diggante bi réeroo am fi sa diggante ak eh, yaayam nga ne nag bu soobee yàlla dinaa ko defanteeg moom kayit duma ko jox duma ko jox lenn eh, seetaan ko bu baax a baax a baax fase jabar daal fase waale ay doom bokk na ci mariage yi nga xamante ni dafay métti jigéen ñi tey falaa jëm ak yéen ci fan laa ciy jaar ci ban bunt damay daal di àndandoo ak waaris yi mu nga fa ak ki nga xamante ni moom mooy Ousmane am nañu fa élément ñu jébbal leen ko benn ci cas yi nga xamante ni euh, soxna yi ñu ngi koy dund ciy jafe-jafe su ko defee ñu seetaan ko rek dellu siwaat àndaat ak yéen euh, ci 88 628 14 13 wala numéro international bi mi ngi noonu ci suufu écran bi waaye tey sama rakk ji nga xamante ni kalla macha allah sës ci man rëkk te du ma rëkk tey moom ma takkal ba yàqu nii fatsi la fatsi la caam ah, ah, ah nañu seetaan élément bi euh, dellu siwaat ci ci ci lu baax li nga xamante ni faatu dox na ci xaw ma abal la na xaw ma may la waaye nee na ma defe naa dama la ko ñawal de eh, kon ñu àndandoo dem seetaan élément bi dellu siwaat àndaat ak mbokki téléspectateurs yi leen di nuyu ku nekk sa ak sa jaaxle ak sonn ak coono moo ma fi indi ginnaaw yàlla ak yonente bi di seet nit mu abandonné ma ak ay doomam fukki at ak ñett ci ren gisuma lu ku ko gis gisuma lu takk ci moom jot naa ci sax def ci ay jéego pour xam mhm. lan mooy problème bi mhm. mais ki ma gis mu nekk sama digganteek moom mun ne ma gàcce ak ñàkk jot lo sama loxo lim ñàkk a jot sama ginnaaw moo tax su ma sañoon doo leen ma sax teg bët. Mm-hmm. ndax xaw ma nu ma leen di wax ak nu ma leen di def ndax xam naa ne bu dee bon sama mbokk moo bon. léegi léegi nit gis ko na ma gis naa papa yi xale yi. Oh. yor na ñaari jabar man maa nekkoon ñetteel. sëy bi nag xaw ma lan moo ma fa jëlee xuloo maak moom xeexu ma ak moom. Mm-hmm. jékki-jékki na daal dem na bàyyi ma. sam papa ne ma toogal muñ moom xam yow instant yi xamoo fan la nekk waaye moom xam na fan la la bàyyi. Mm. bi ma toogee ba yàlla dogal yàlla indi ko. Mm. biñ ko laajee dafa ne xiiful marul tëjul tëjuñu ko. Mm. deewul duggul kaso moom moo ma bàyyi. bi sama doom bu mag bi waree def examen. Mm-hmm. ci laa doogee xam ni kayitu juddoom bi dafa am problème. Mm-hmm. mbokkam bi ma doon gis ma ne mbokkam bi ma ne ko dimbali ma ci papa yi xale yi. laajuma ko dund laajuma ko yëral ko dàll war na ko def defu ko. Mm-hmm. amul problème teg naa lépp ci loxo yàlla. mais sama doom bi comme maa ngi fay école booba léegi ba ñu dem ba yegg si fii mm. këyitu juddu bu mu war a tax sama doom mm. jàngam yàqu waa ji dugal loxo dugal tànk mu ñëw ne ma maa ngi jégglu mu ne ma neexul ba neexul dañ cee dëgg seen tànk mun ne ma muy say njëkke muy sa jëkkër munu ma samay doom seen seen baay di dund ma am leen ci dëgg am leen ci sunn ak farata mm. ma leen di utal beneen sant waaye bu du woon loolu utoon naa ko bu yàgg est-ce que yow jàpp nga ne yaa ngi sëy ba léegi man dama jàpp ne ma fukki at ak ñett bi sam dëddoo daaw moom dafa déggante ak sama doom ñaari fan mm-hmm. mbokkam boobu moo ko dox fexe fexe fexe ba jël numéroom jox ko sama doom bu mag bi mm-hmm. bi mu ko ko joxee ñaari fan lañ déggante la déggante ak ay doomam mm-hmm. sam papa dëddu bi sam dëddoo moom mu ñëw kër ga fekk ñu yóbbu sam papa dëkk ba bi mu ñibbisiwaat bi ñu ñibbisee la ne sama doom yi mun ne ko bu seen yaay ñëwee dinaa ñëw jaale si ba nii tegu fi tànk mu ne ko damay tukki xale ci sama ku mag ki ci la ko wooyee mu ne ko comme léegi amante nañ numéro mm-hmm. mu a mu ne ko léegi damaa bëgg mm-hmm. comme sa maam moo ñu doon dimbali sama yaay commerce yàqu na ci feebar mm-hmm. ndax tëdd na ñetti atu yàlla yoo xam ne da ko doon faju sa maam bi ñu doon dimbali yàlla def na sa maam dëdd xanaa di ñu mën a jàppale léegi lii la ko sama doom bi wax maa ngi julli maa ngi julli toog sama kaw sa jaada bi mu waxee loolu bi sab doom bi waxee loolu mu ne ko sa yaay ñaata la lay fayal ak ñaata lay fayal sa rak mhm. bi mu ko waxee da ko dafa tëb ne ko loolu leen seen yaay munal man munalul ma leen ko képp kuy jug di ma dimbali tey nañ ma dimbalil sama ñaari nañ ma dimbali te yàlla tax sama ñaari doom yi seen avenir bañ a yàqu lu tax nga suur góor dama suur ndax lépp lu ma metti sama àdduna góor moo ma ko teg lépp lu ma metti coono bu ma jàkkoonte bu ma demee ba ay di ma ñu nawa di ma tuutal ma may sol ay sagar buur ma ko teg dama suur góor ku makki ba tey inscrit wul directeur bi dafa dem ba sës daf ma comprendre ba sës te bàyyam am na ko am na ko am na ko seen famille am na ko dama sonn dama suur góor bëggatuma dara ci sëy nañ ma dimbali ku may dimbali utuma ñaan pour ñu dimbali ma sama yaram nañ ma dimbali sama yaram rek teg affaire sëy ñu teg ko nee da ko te dimbali ma sama doom sama ñaari doom yi rek seen jàng bañ a yàqu seen avenir bañ a yàqu ndax formation lay def bii mooy ñaareelu atam. voilà ñu jaajëfal ko bu baax a baax mbokk moom mu jaajëfal waa régie euh, ci élément bu am solo boobu di firndeelaat rek li nga xamante ni moom la ñuy wax que ne euh, sunu mbokki góor ñi li nga xamante ni moom la seeni soxna di jànkonteel léeg wax naa leen nag boo euh, li Baye Mbaax di wax rek bu ñu yëkkatee kàddu rek jëmale ko ci benn cas bu ñu am rek. nañu jàppee ne euh, du ñëpp ñoo ci bokk yem waaye nag kenn ku ci nekk nga nekk ak sa jabar ci digg bu mel nii mën ngaa dugg ci sa biir néeg nag euh, laloo sa loxo ndi joor tëdd sa njegenaay wala nga jël sa loxo euh, ni ko rama di waxee ron ko ci suuf sa sa bopp teen di xool kaw tey di lug tey mattu màttu boobu da nga koy soppi nag jéem a xool ndax li la war ci soxna si def nga ko wala ndax lu may jaay laay jën la ngay dundee ak moom waaye wala ndax dafa ngiro sañatu koo bañ dinaa ko defanteeg ba moom ba mu sës ndax loolu nga war a dundee ak moom am déet donc bu ñuy wax rek ñi baax te di tenir seen i jabar jàppale leen taxaw leen ñooñu taxuñ ñuy wax waaye ñi nga xamante ni xëy na peut-être dinañ sëy ak jigéen ak lu leen mën a metti ci moom parce que des fois cas day ñëw man boo ma waxee man la loo def ba tax mu doxalee noonu naka nga comporté woo ak moom léeg-léeg sax nga ne sama borom kër duma woo téléphone dinaa toog ñetti weer ñeenti weer du ko dégg bu ma bu ma yëkkatee téléphone woo ko daf may coupé wala daf may raccroché aw ne wala daf may du ma jël ma ne la boo ko woowee téléphone lan nga koy wax ndax saaku ceeb bi jeex na rël wala ndax ma bu soobee yàlla maa ngi ci kër gi ne déjji toog naa la xaar wiiri wiiri jaari ndaari wala ndax wala ndax doxaan rek nga nekkee ci dëkk bi wala ndax li nga yor defaloo ma ci dara di wër di ko may xale yu jigéen ñi ndax loolu ngay wax ak moom waaw wala déet loolu boo ko dee wax ak góor du sawar ci yëkkati téléphone am di waxtaan ak yow waaye nag euh, sañ nañu Euh, jigéen ji nga xamante ni moom moo nekk ci kër te néew doole wax naa leen ne dañ ci jël exemple ci cas bi parce que doomam dem na ba war a def examen ñu xam ne kayitu doomam baaxul lan moo yàqoon kayitu doomam yi man indil na ma ñaari kayit yoo xamante ni euh, doomam yi am nañu ñaari sant parce que bi mu demee ba xam ni kayit yu baaxul te mu interpeller seen papa pour mu defaraatal leen yeneen i kayit yéeg wàcc yéeg wàcc ba njàngu xale yi bëgg a yàqu expliqué na ko benn dëkkandoom boo xamante ni moo nekk ak moom c'est li nga xamante ni sax du yoon mais nag comme amul pexe te bëggul jàngu doomam yàqu loolu moo tax mu rayante ba beneen nit moo jël xale yi déclaré leen ci turam def ci turam santam moom muy waajooju ñu dindi santu seen papa yooyu dafa bokk ci torture yi nga xamante ni jigéen ñaa ngi koy dund ci biir kër yi te muy lu metti lool nag parce que nag sëy fa nga war a sëyee xaw ma moo jël ngone xaw ma jëlul ngone waaye daal ñëw nga tàllal loxo ne bëgg naa ñu laaj ko mu ne bëgg naa ñoo ñu yeew leen maye yéen ñaar bis boobu ree ngeen di fanaanoo njoñ seeni ginaar def ba mu baax kenn ku ne xam na la ca nekk ci jouru mariage sa jëkkër toog nga bokk ak moom benn kër bi ngeen nekk nag ci fartas yàlla ak sunus muhammad ba yàlla dogal ci ak njaboot su ngeen toogee ba war ñaawoo toog ba war wëlbatiku di séqante yu ñaaw ba ku nekk di ci jot ba muy ñëw sax ci télévision xalaat leen bis bi nga xamante ne dañ leen yee woon maye te falaa budda union boo gis wala ñaar ñoo gis yàlla boole leen dina am ku taxaw ne ànduma ki says bi wala jigéen ji lii mooy sikkam wala ku góor ki lii mooy sikkam subaa na ma góor goo xam ne dañ laa jiiñ di yor jabar te boo defee jigéen ñaari weer ñetti weer muy bëgg a dee te du génn nag nettali ji ko ndax la koy waral mooy dañ ko ne woon déet mu ni ah kay kii nga xamante ni fase na diw fase na diw fase na diw nga ne moom ngay seyal kii nga xamante ni jabar ju mu takk dépense bu mu la war a jox jël ko jëndee ko ay basin jëndee ko ay miraaki maraakisam wut saagam bu ndaw mel ni diplomate te xëyul gontul di jaay jomba ñaaw ci mbedd mi nga ne bëgg naa boo dee jigéen ji fàttaliku ab yeew loo mën a daj ca kër ga loo mën a daj ca biir sëy ba da ngay wëlbatiku toog ca sëy ba toogaay boo xamante ni rek da nga naan naa ci toog ndax lan dañ ma ne woon déet ma ne ah kay te am na loo xamante ni sama jom ak sama ngor duma ko may may dem di wax ne la ngeen ma doon tere kat dund naa ko ñu naan man Euh, du ñu magum xamoon naa ko magum waxoon naa ko lañ doon kon dañuy daal di toog ci biir kër gi nga jël ko nag def ko ngànnaay yow ku góor ki ñaw fu mu jëm du dem fenn fii lay toog ci biir kër gi ngiroon na fi am naa moom ay doom dootul demati naa dem seeti leneen te euh, maa ngi déglu léegi benn góor gu baax muy wax lu am solo ci ponk yi nga xamante ni ku ko gis ci góor dawal mu ne góor du nay déedéet góor goo xamante ni dafa naya naya naya naya nay ba jabaram saa yu xëyee la muy def mooy dugg ci biir marché bi yor mbuus mu ñuul kukku mu ñetti dërëm sànni ci ñetti yaaboyam ak bisaabam ak daxaaram ndeysaan am suturaam ba dee ŋàbb ko fu ne mu jonkan fa fa expliqué bu yegsee ci kër gi genn wàllu walaat diwlin bu mu ca def ak ceeb ba di ko të te muy toog di xaar doomam ji nga xamante ni mooy namp ëllëg mu mën koo aw ci coono boobule góor googu ku ko yàlla dénk ku ne yàlla na la ci yàlla taxaw waxuma ko amul de waxuma ki amul ba expliquer jabaram di nga gis góor goo xamante ni amul waaye bu toogee juróomi fan juróom benni fan yàlla dénk ko wërsëg woo xamante ni wërsëg woo wu mën a jëfandikoo la la muy def mooy rek daal di xiin xiini day gaaw ne pëccet yegg këram soxna si tey de damaa foroon kaañ soxna si commencé cucusal di xeeñal laaj ci ngoon gi nii ñëpp kon man waxuma góor boobu waaye góor bi nga xamante ni yàlla dénk nag ko ba noppi te yitteem yëpp mooy mbedd mi mu fàtte jabaram loolu dafa bokk ci sëy yi nga xamante ni mu ngi toj dëkk bi mbokk alo allo allo oui soxna si ñu ngi lay ziar allo salaamaaleykum waaleykum asalaam maa ngi bu wér ñu ngi lay delloo ziar tata sant yàlla bu baax alhamdulilah ah allo allo voilà ñu ngi koy xaarandiwaat euh, sunu nende tuuti boobu mu ñëwaat euh, ci émission bi dugal participation euh, su ko defee rek ñu daal di àndandoo ak moom wax naa leen de bi ci gën a metti ci biir kër yi mooy bi go jigéen ñi wéyaale te it nag kër goo jonkon benn yoon ñaari yoon koo wax ku ne mu ne moom daal xeebub dépense la la war a bàyyi dépense danañ ko xeeb jamono bi ni mu tëddee la. te mm-hmm. xëy ñu gont ñu allo. allo tata. doom booy. ça va. sant yàlla bu baax. ah tata te man dama laa sopp lool. yaa wax loolu. billaay. c'est que yooyu nag daf may tiitaruloo ne ne tuuti bàyyi leen yooyu. <laughs> dama dama bari tiitar dama lay seetaan à chaque fois. <laughs> ndeysaan. mais sopp naa la trop. maa la raw maa la raw maa la raw bu baax a baax. di la ñaanal. ndeysaan yàlla bàyyi laa sa xel. allahumma amiin doom booy. yàlla teg si yow loxo. ndeysaan amiin amiin ñu bokk ko nene tuuti. waaw na li nga li nga def neex na ma de. émission bi. li nga def neex na ma de. merci. <laughs> merci beaucoup ma fi yi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. Eh, di ko ñaanal moom i tamit yàlla na ko yàlla def mag mu ñam mag mu am ñam eh, magum diine eh, ci kàttanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax na rek man li ci metti rek mooy xëllantoo gi nga xamante ni ñu ngi koy xëllantoo jigéen ñi boo génnee ci mbedd mi di jaay jomba ñaaw te li ma ci gën a tee metti nag góor ñi nga xamante ni dañuy vanté wu boo génnee sa kër man damay lii man damay ah sama fauteuil yi dama commandé woon lii laa tous dara nga fa deful soxna si teggi na tam di jëndi ceen di la ca booleel ndeysaan kenn ku ne da ngay sagu ah yow sa ceen gi nga ne sama jëkkër ji ma ko jëndal sa mbubb mi ñu yaakaar ni jëkkër ji la ci kër gi ñu yaakaar ni jëkkër ji la nga boole ko gën di xoggali ko pour lan yow yëkkati sab sag yow sagala sa jabar sama jabar ji ma yàlla booleel xeebu ma benn yoon sama jabar jii ma yàlla booleel lu mu am lu ne bokk na ko man tey it nag yéen a ngi yëkkati seen bët di ko teg ci kër gi wala di ko teg ci man lu fi dee moo ko rey na ma ko ñëpp ñaanalal yàlla loolu ci boppam moo xewi fan lañ lay gërëme xaar ba teg la ci jaat ji ilimaan ji taxaw ñu ne ñaari rakka yi pour ñu jullee ko ñaanal ko yàlla mu julli ba yeggal mu naa may leen ma kii day tey rek la ma sa def lu ma naqari foofu la nuy xaar ñun soxlawuñu ngërëmu foofu jabar da koy gërëm fi nga ko war a gërëmee ku def lu baax danga ko koy waxal fi nga ko war a defere te olof Njaay nee na nag liggéey bu yemeeg te di jàmbaar dootu gaaw na ci loo xamante ni waa góor la du yokki wagg waaye dana tax a sawar waaye lu mu def rek nga ne fuuf ca ginnaaw boo génnee naan damaa kii laa dama doon kii laa dama kii dara jigéen ñi dee nañu wett waaye gàcce ngaalaama yéen ndax nag wax dëgg yàlla dangay ngay ànd ak góor gu yor million wala ay millions yu bari nga génn yoroo ñaari dërëm bu ñu génnee dañ naan buntu kër diwa nga ne ku jigéen ki la ñuy wax loolu du cër bu ñu yàlla defal ëllëg bu doom yi baaxee kan la ñuy wax seen yaayee ko fi liggéey neex te ba bu yomal xiyaamee yàlla may ñu opportunité yoo xamante ni ca la ñuy def ak ñoom danañ ci am sunu àjjana la ñuy def ak sunu borom danañ ci am sunu àjjana loolu du lu neex waaye nañu xaarandi gars yi ci téléphone bi sàngo nuyoon xam nga lu ma bëgg daq hmm. naa la ëpp def <laughs> da nga ñi tardé. non non fi may jóge moo xaw a sori mais ku fonk li nga may def loola. <laughs> xam naa loolu waaw tey nag dama xaw a naajee génn ba mu demee nii daal. ñooñu biig yee baax rek. waaw waaw vraiment nag. waaw euh, maa ngi la fekk sax ci domaine boobu. Mm-hmm. maanaam sa soxna. waaw jarul sax ngay jàkkaarlook moom naan ko yaa baax. Mm-hmm. ak yooyu. Mm-hmm. boo gisee mbokkam. waaw man nga ko ne moo baax. boo taajee mbokkam. waaw moom nag nekk bi nga nekk ak moom. waaw lu mu soxla rek nga gaaw ci. xam nga taaj sa soxna naan ko yaa baax. taxu koo neex. ak fi nga ma jëlee li nga ma defal. déedéet. damay wax ne euh, iñaan du gërëm dof du gërëm. iñaan. iñaan du gërëm. defe na ni bu la gërëmee lee ngaraw ko. dëgg la dof moom xamul loo ko defal ba mu war laa gërëm ko defal moom mu defal waaye ngërëm li bu ma ko dee wax. Mhm. nit bu ay mbokkam teewee te nga xam ne boo amee lu la naqari ci moom waxu ci mbokkam. Mhm. bu defee lu baax danga nga koy waxal ci kanamu ay mbokkam. bu bis dikkee da nga koy waxal lu baax loola ngir ña nga xamante ni jaaruñu ca mbaax ga war koo mën a ñee ba baaxal. waaye na ñëpp bokk yem. non bu ñëpp yemoon. wala su ma ko waxalee lu baax man damay faible. Mhm. li may faiblal mooy dañ naan kon mënuma dara. Mhm. looloo fi ne te góor ñu bari mënuñu dara. waaye nag euh, Mbayang soxna. waaw ci ni nga koy yore rek. waaw ay mbokkam dinañu xam ba xam ku baax la ci yow wala leneen la. parce que man nga ko gërëm. waaw ndekete am na loo nga xam ne mi ngi la koy nëbbu mais nga bu ëllëgee loolee feeñ. nga am gàcce. waaye parce que yaa ni woon waaw ba pare bëgg a wëlbatikuwaat ni déet du mën a olof Njaay nee na ku gaaw nga gaaw. waaw ku ralentir nga ralantiir waaw bu la wanee mbaax wan ko ko. Mhm. bu la wanee safaan xam leen ne safaan boobu la ma wan. Mhm. waaye nag mu doon loo xamante ni sax même doo ko siiwal. waaw non pour wan sa soxna daal ni ko baax nga ci man. waaw lu mu soxla gaaw ca lu mbokkam soxla gaaw ca. waxayuma foofu. man loolu laa gëm. loo gis itam lu baax. nga jëmale si ko sa kër. waxew ma foofu xam nga ñu ngi woon ci mariage yu intérêt. Mm-hmm. da ngay dugg ci nit ki di sëy moom yow mënoo dara yow ku góor ki ku jigéen ki moo mën. Mm-hmm. waaye ci kaw mën boobu mu mën ci ngay dund yow mais nag bi ci gën a tee metti mooy doo ko feeñal. waaw lool boo ko feeñalee jóg fa di. ah loo fay jóge ah yow intérêt nga ko toppee. bis bu xamee ne intérêt nga ko toppee kay dala fay dalay. waxuma foofu ba tey de. Mm-hmm. feeñal gi mooy. xam ni yow mi kat xam na loo xam ni mënoo ko mi ngi lay teral mi ngi lay defal sa intérêt mënoo ko nga nga nga di ko gërëm di ko sant di ko sant di ko di ko di léegi nag yéen ngërëm li li ngeen koy soppee mhm. mooy génn ci mbedd mi di doxaan di mbubboo mbubbu yi lay jox ak jasneer yaag ñaam sax nañ jël kii ci liñ man loolu bokkuma ci te bu ñu dellusee di nga waxuma pour yow waxuma pour sama bopp exemple <laughs> àdduna bi la joxe waaw dëgg la waaw xew ci jamono jabar jabar jënd parfum jënd allo waaw ñu jël kooku xaaral ba ma ñëw yow tey jii jël ko te rama sax day teel a ñëw léegi allo waaw na yegg si ku mën na ngeen def ñoo ngi fi lii nii wallaahi. bii mooy ala Fat Thiam. ah. <laughs> yow wàcceel ma ci suuf tuuti. rafet na bii bii mooy ala Fat Thiam. kontaan nañ torop si émission bi. waa gis nga lii gis nga ni faatu def. yii sëñ sëñ moom. Ah, merci ngaay <laughs> jërëjëf. <laughs> merci beaucoup ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax mbokk yooyu woote euh, di di ñu seetaan cest bu ñuy wax émission. c'est pas pour ñun. Mhm. mooy ki koy def nga may yeddal uh-huh. yow sango gis nga fi ba tey mm-hmm. parfum bu rafet bu neex ma indi nga jëndal sa borom kër marakis bu ma gisee sama mbokk moroom yi nga xamante ni mën nañoo dem Maroc wala Dubaï indi marakis te mënuma ko ma leb ci ñaar bu pour ñaari weer mm-hmm. weer wu ne junni wala ñetti weer weer wu ne junni mm-hmm. jesner ba dama koy tappalaatu moo xam sax ma am piir ba wala ma am deuxième choix ba waaye dinaa fexee cokk cokkal ba mu jekk dëgg la boo génnee ci biti lu ci gën a jekk a ah, sangu sa sañse bi moom tubaarkàlla di la waxal lu baax te ku la ku ma ku dajeeg man xam nga luñ ci xam ni yow laa fonk xam nga luñ ciy tegam mm-hmm. bii nii pourtant sama tailleur bi moo ma ko ñawal de mooy ki nekk ci bopp koñ bi laa moo ko ñaw bassin bi marakis yi moom waa original la nag parce que boo xoolee talon bi original la loolu xam nga nu mu loolu mooy lan wax lu dul dëgg di ko terloo te te te wax lu dul dëgg mm-hmm. amuloo taat loo jal jal day daanu sàq mi te yooyoo dara naxoo kenn sabab fu ngay nax euh, li ñuy def mooy rek euh, ni ma leen ko waxee euh, ci deuxième partie bi la ñu war a ànd ak Rama defe naa ni waxtu wi war naa xaaj mhm. ndax sama gars yi dañu tardé li ñuy def mooy nañ ñu dugalaatal élément bi su ko defee Rama ñëw interprété ci ñu ñëw ci sunu rubrique luy jaay ci jaba ànd koog doomi Sénégal yooyu nga xamante ni lañuy liggéey fii ci kër gi la ci Sénégal la su ko defee rek mu commenté ci moom it ñu daal di tëj suñu waxtaan te yaakaar naan di nga dina la neex nga jàkkaarloog Rama. dina ma neex ma jàkkaarloog Rama trop sax. comme daf koy jouer ñu dem seetaan élément bi dellu siwaat <laughs> mbokk maa ngi leen di ku nekk sa ak sant jaaxle ak sonn ak coono moo ma fi indi ginnaaw yàlla ak yonente bi di seeyeg nit mu abandonné ma ak ay doomam fukki at ak ñett ci ren. gisuma lu ku ko gis gisuma lu takk ci moom. jot naa ci sax def ci ay jéego pour xam. lan mooy problème bi mais ki ma gis mu nekk sama diggante ak moom mun ne ma gàcce ak ñàkk jot lo sama loxo lim ñàkk jot sama ginnaaw moo tax su ma sañoon doo leen ma sax teg bët ndax xawma nu ma leen di wax ak nu ma leen di def ndax xam naa ne bu dee bon sama mboq moo bon léegi-léegi di gis ko na ma gis naa papa yi xale yi oh. yor na ñaari jabar man maa nekkoon ñetteel sëy bi nag xawma lan moom ma fa jële xuloo maak moom xeexu maak moom mm. jékki-jékki na daal dem na bàyyi ma sam papa na ma toogal muñ moom xam yow instant yi xamoo fan la nekk waaye moom xam na fan la la bàyyi. Mm. bi ma toogee ba yàlla dogal yàlla indi ko. Mm. biñ ko laajee dafa ne xiiful marul tëju tëjuñu ko. deewul duggul kaso moom moo ma bàyyi. bi sama doom bu mag bi waree def examen. Mm-hmm. ci laa doogee xam ni kayitu ju doom bi dafa am problème. Mm-hmm. mbokkam bi ma doon gis ma ne mbokkam bi ma ne ko dimbali ma ci papa yi xale yi. laajuma ko dund laajuma ko yërel laajuma ko dàll war na ko def defu ko. Mm. amul problème teg naa lépp ci loxo yàlla. mais sama doom bi comme maa ngi fay école booba léegi ba ñu dem ba yegg si fii mm. kayitu juddu bu mu war a tax sama doom mm. jàngam yàqu waa ji dugal loxo dugal tànk mu ñëw ne ma maa ngi jégglu mu ne ma neexul ba neexul dañ cee dëgg seen tànk mu ne ma muy say njëkke muy sa jëkkër munu ma samay doom seen seen baay di dund ma am leen ci dëgg am leen ci sunn ak farata mm-hmm. ma leen di utal beneen sant mm-hmm. waaye bu du woon loolu utoon naa ko bu yàgg est-ce que yow jàpp ne yaa ngi sëy ba léegi man dama jàpp ne sëyu ma fukki at ak ñett bi sam papa dëddoo daaw moom dafa déggante ak sama doom ñaari fan mbokkam boobu moo ko dox fexe fexe fexe ba jël numéro am jox ko sama doom bu mag bi bi mu ko ko joxee ñaari fan lañ déggante la déggante ak ay doomam sam papa dëddu bi sam dëddoo moom mu ñëw kër ga fekk ñu yóbbu sam papa dëkk ba bi mu ñibbisiwaat bi ñu ñibbisee la ne sama doom yi mu ne ko bu seen yaay ñëwee dinaa ñëw jaale si ba nii tegu fi tànk mu ne ko damay tukki xale ci sama ku mag ci la ko wooyee mun a ko comme léegi amante nañ numéro. mu a mu ne ko léegi damaa bëgg. comme sama maam moo ñu doon dimbali. sama yaay commerce yàqu na ci feebar. ndax tëdd na ñetti atu yàlla yoo xam ne da ko doon faju sama maam bi ñu doon dimbali yàlla def na sama maam dëdd. xanaa di ñu mën a jàppale léegi. lii la ko sama doom bi wax maa ngi julli maa ngi julli toog sama kaw sa jaada bi mu waxee loolu bi sab doom bi waxee loolu mu ne ko sa yaay ñaata la lay fayal ak ñaata lay fayal sa rak mhm. bi mu ko waxee da ko da ko dafa tëb ne ko loolu leen seen yaay munal ma munalul ma leen ko képp kuy jug di ma dimbali tey nañ ma dimbalil sama ñaar nañ ma dimbali te yàlla tax sama ñaari doom yi seen avenir bañ a yàqu loo tax nga suur góor dama suur ndax lépp lu ma metti sama àdduna góor moo ma ko teg lépp lu ma metti coono bu ma jàkkoonte bu ma demee ba ay di ma ñu nawa di ma tuutal ma may sol ay sagar góor ma ko teg dama suur góor ku makki ba tey inscrit wul directeur bi dafa dem ba sës daf ma comprendre ba sës te bàyyam am na ko am na ko am na ko seen famille am na ko dama sonn dama suur góor bëggatuma dara ca sëy nañ ma dimbali ku may dimbali utuma ñaan pour ñu dimbali ma sama yaram nañ ma dimbali sama yaram rek teg affaire sëy ñu teg ko ne de côté dimbali ma sama doom sama ñaari doom yi rek seen jàng bañ a yàqu seen avenir bañ a ndax formation lay def bii mooy ñaareelu atam. jërëjëf muy lu doy waa Sango defe naa ni gis nga ko c'est plus que dur donc euh, mu ngi noonu lan nga ciy sànni laataa ñuy introduire Rama. li mu ne suur naa góor rek moom ma ci naqari bëggatuma góor parce que am na woykat bu naan bu dee ki nga jëkk a nopp dafa yàq sa xol. waaw ma digal la bul geestu. Hmm. bu ñëpp yemoon am ñu gedd seen cër man mhm. na daje keneen fàtte lépp lu ko mas a naqare ci àdduna bu mu suur góor waaye ndax say mënta ñàkk jaamu yàlla gaa tax mhm. waaw ndeysaan mhm. fa ñuy bëggee góor mooy ci xol bi waaw ci xol la ñuy bëggee góor fan lañ lay blessé ci xol waaw loolu yëpp am na moo tax supporter les deux dafay jafe docteur Rama mais mais waaw <laughs> na docteur Rama ñëw ba pare Rama bismillah uh-huh. Adja Mbaye maa ngi lay nuyu. di la ziara. Mhm. <laughs> di kontaan gis naa li nga sañse yaa wax lii alkaati du bàyyi dóor bàyyi sëy yi ngay def. pourtant yow di nuyu sama nijaay sama xarit. <laughs> sàngo ah, waaw sàngo bëggoon a jàkkaarloo yow ak yow it. Mhm. ak yow plateau macha allah. waaw ñu def plateau bu neex. Mhm. di nuyu téléspectateur yu 2STV yëpp. di leen ziara di nuyu sama famille di nuyu ñëpp. macha allah nga dugal thème bu am solo. waaw boo xamante ni si tarkaal la. li ñu waxoon daaw rek loolu la ñuy waxaat ren. la ñuy wax daaw ak daaw jéeg moom la ñuy wax ba déwén. Mm-hmm. ci góor ñi te du jeex. ñoom. wallaay. ndeysaan danoo yàq xolu jigéen ñi. Mm-hmm. xam nga sànq da ngaa am solo. muy ndax da nga ni góor ñi dañoo tafatul jigéen ñi ci ci ci seen kaw. ci seen dën waaw boobu mooy sama thème mu semaine bii di ñëw. Ah. ci quinzaine de la femme. waaw. Mm-hmm. macha allah. dëgg la. jigéen ñi ci boppam la seen xol jeex. wallahi ci góor ñi. wallahi ndeysaan jigéen ñaa ngi yore cardiaque. Mm-hmm. jigéen ñaa ngi yore goitre jigéen ñaa ngi meesa meesa mees ba boo leen gisee doo leen xàmmee mm-hmm. lu leen ko teg góor ñi dëgg la ak ah, góor war naa dimbali jigéen yërëm jigéen wallahi wallahi jàppale jigéen yiir jigéen mm-hmm. te yàlla tax te yàlla tax adduna bi dafa jeex ba pare li ma wax keroog rek jigéen mooy seen jabar mooy seen yaay mooy seen i bàjjante mooy seeni i sœur wallaay kon nañu jàppale jigéen ñoo dem sans ñun ñoo dem saa ñun dëgg la mënoo leen a dem saa ñun kon jàppale leen ñu jàppale leen ñu bu baax ndax dinaa la xamal leen mooy yaa ngi bëgg indi émission bu mel ni coow li coow li ndax gis nga nii góor yàqe xelu ji xolu jigéen waaw noonu la jigéen yàqe yàqe xolu góor ca wet ga mm-hmm. jikko yi moo mat a defaraat mm-hmm. Mm-hmm. booy roy nga roy lu baax booy def nga def lu baax dëgg la xam ni àdduna ni mu yaatoo li fi di ay jigéen kenn xamul nu mu toll. wallahi wallahi yàlla tànn kenn boole la ci ak moom. li fi di ay góor itam kenn xamul nu mu toll di ay góor it kenn xamul nu mu ah, toll. dugg foofu. yàlla tànn kenn boole la ci ak moom. waaw ku ci ne war nga sàmm sa ngor. ba bu ëllëgee noonu du ree. dëgg la mais vraiment am na góor ñoo nga xam ni ñu ngi yàq deru góor ñi am jigéen ñoo nga xam ni ñu ngi yàq deru jigéen ñi. nañu seetaat sunu bopp. ca xam ne ay sénégalais lañu. est-ce que gëm nga ne jabar dañ koy gàtte. man loolu rek laa gëm. jabar da nga ko war a gàtte. jabar warul sax di la ñaan. doom yaral dafa war a xam fu sa xaalis nekk ci li ci kër gi. dafa war a xam fu mu ne. may ma tuuti. yaa ngi taal dëkk bi. may ma tuuti bu fi dóorlu ay jigéen. may ma tuuti wax la. li ci kër gi li nga yor ci kër gi. waaw sa jabar dafa war a xam fu mu ne. pour bu soxlaa dem jël ci. bu la nee damaa soxla dalay woo téléphone nga damaa bëgg a nangam nga ne ko demal jëndi. loolu amati na. xam nga lu wóor ko xam nga lu ma bëgg a xam nga xam ko. waaw bëñ amatul ci pharmacie yi léegi bë bëñ saxaatul. bañu monte rek a fi nekk bu fi peslu ay jigéen. man daal li ma la am na fi góor ñoo xamante ni waxuma la. xaalis bi fi mu nekk. Mhm. mais seen caabi armoire képp ñu xam ni mi ngi nekk à ta disposition. Uh-huh. loolu ñaaw na dañuy njëgën naa ayoo kalpe mani man xam nga. Euh, jabar loo koy xam nga jabar loo ko war a. dañ koy ngegenaayoo bu ñuy sang dugalaale ko nu mu war a demee. nu mu war a demee sa jabar dikkee. waaw sëy si ay bokkam toog. waaw nga ne ko maa ngi lay ñaan bu ma nëbb dara. Mhm. ndax loo ma nëbb bu feeñee yàq lu bari. Mhm. mu dégg ko ay bokkam dégg ko. Mhm. nga waat nga wéet moom. ni ko man li ma lay xamal. mooy du la nëbb dara. te te jëfe ko fexe ba bañ koo nëbb dara. dëgg la. man day loolu laa xam ndax day mag ñi jëkk ña daan nañu sëy fu dara newul wallahi fu dara néwul moo taxit nag doomi démb ak doomi tey wute lool man xam nga ma mën a gëm sàngoo sëy du alal du alal xol la ak jëf sëy du alal jëf la dama ñëw pour compléter la nga compléter ma c'est ça la femme est un complément la ñu wax qui vivra verra d'objet direct sax mhm. du indirect de mhm. Mhm. complément d'objet direct dëgg la dëgg la dañu ñëw kenn ku ci nekk war a compléter sa morom te complément bi sama poche ci la bokk sama xalaat ci la bokk samay jëf ci ci la bokk sama remplacer la ci kër gi ci la bokk mais yow bu fekkente ni dama ñëw ci kër gi man ma war laa compléter nga bëgg a wëlbatiku jël sama xol bi xoññoñal ko ba yow man sawan ma ginnaaw moom laay gën a bëgg que sa teew ci kër gi foofu complété tuñ kenn te jigéen ñaa ngi koy dund dem am na jigéen bu fi ñëw ay bulletin de salaire jëkkëram la ma dajaleen hmm? bi ma gisee bulletin de salaire jëkkëram hmm. gis ndaw si ci wàllu boppam dama yéemu ci yàlla wallaahi hmm. mais wanuma ko ne ko waxuma ko ne ko lu tax sa jëkkër ah, am lii te defalu la li déedéet dama ko ne yow mii yaa sàggan mun naa mën a ko sangul te fóoti dëgg la nag ba set wecc. am na jigéen ñu sàggantam. Petersen gi boo fa demee carax mille nangam. yére yi yomb yi tubaarkàlla waxuma la dara peese ba ca Pikine. 800 nga am carax. déedéet peese ba ca Pikine. <laughs> waaw peese ba nga am complète boo xamante ni foo génn. foo génn ñu laaj la mu jógee wallaay mun a mën ko nga daaj taabal madda ngi ñooñ. mango génn na óol ak tàngali gone yi nga commencé di ci jaay. Mhm. di ci foraatu sa bëccëg ñaar fukk booy teg fenn bu weeri dee nga def rek sa bopp. bàyyi leen gennu càggante gi sama jëkkër joxuma hi hi dëkkee jooy man du ma jooyal benn góor góor ñi dañoo joxatul kenn soxna Mbayang li ñuy def jigéen waaw li nga xamante ni sii mooy gën ca yow góor joxu la ko xam nga wax naa ko fii keroog waaw jigéen ñi léegi dañuy dóor waar jigéen joo xamante ni si bëgg ngaa faj gàcca da ngay dóor waar ah, boo dóorul waar wallaay laax dana la lakk te booba day yéex day yéex. ndax jigéen kattan dafa am période boobu nga mën a dóoree waar. gis nga boo xëyee. waaw fudd tubaar fa kàlla macha allah dara jotu la. waaw mhm. nga daal di sangu daal di julli. Mhm. génnal nga dóoree waar. benn jigéen toggatu ci kër di yendandoo ak di yendu ci grand place. waaw mais da nga war a toog ci kër gi toggal ma nag. waaw toog ci kër gi togg mën naa ne. waaye boo paree bu dee ay muusi cuuraayu ñaar fukk sax nga def ko ci sab saak dugg ci say kër xarit jaay ko fa am am ci loo ne. waaye xam nga lu may bañ. jigéen ñoo xamante ni si grand place la ñu nekkee. wax lu seen yoon nekkul. gis nga diw la mu sol gis nga xewu diw ba démb gis nga nangam xoola kee di ñëw teg sa attaaya. <laughs> loolu moo fi jeex. jigéen day dóor waa ma xamal la nag man leen. ñu ñu man de soxna bu ma la fekkee ci waar. waaw. dinaa la ci jàppale ba ku la xam-xam ne maa ngi la ciy jàppale. wallaahi loolu laa gëm de. waaye bu ma la fekkul ci waar. Mm-hmm. maa ngi préféré nga toog. Mm-hmm. loo soxla wax ma. Mm-hmm. te billaahi jabar ji nga yor nga fas yéene lu mu soxla nga jox ko wala nga mu xam fa ngay denc. nga ni ko demal jël jëndi. Mm-hmm. boo ko saxoo barke salaatul fatiha dootoo tàggoo xaalis. dëgg la moom laa leen wax man leen yàlla ku mu ku mu ku mu ku mu yen da lay teeñal. Mm-hmm. waaw te boo ko nangoo yenu rek ne ko sàcc ñu naan diis na. loos bi dina damm. yàlla ne xaaral maa ngi ñëw. wallaay doo yëg dama lay teeñal ba mu baax. Mm-hmm. service commercial ñu ngi def signe ci suñu rubrique luy jaay ci jaba. Euh, fan nga ñu demaloon. waaw macha allah defal naa leen lu am solo. waaw ci suñu rubrique luy jaay ci jaba. waaw euh, demaloon leen ba Ngor route dem ci. madame Dramé madame Dramé. Mhm. ci <laughs> madam Dramé. waaw ci route de Ngor. ci route ci boutique ba. ci boutique ba macha allah. muy menuiserie bi ma doon wax sànq menuiserie euh, bu am solo. Mhm. bu am solo loo xamante ni si bu ñu ko wanee. Mhm. dinañ ni importe la. ci àll ba la jóge li li may naan rek kuy wàlli yaan sa kër a tëggul macha allah ñun tey nag suñuy doomi réew ñoo taxaw samp def loo xamante ni si bu ñu ko gisee dañu koy jaawale ak la nga xamante ni si moom la te ñoo leen le nag parce que ñoo leen dàq ba pare gën leen a dëgër le ñoo leen gën a wér le ndax nag gis naa ko fa waaye macha allah mm. kon dañuy àndandoo ko waa régie ñu tegal ñu suñu ñu dem xool ko ñu xool suñu élément bi nga xamante ni defal nañ leen ko ci seen rubrique luy jaay ci jaba muy rubrique bu bees tàq boo xamante ni mm. yéen a ngi koy am ci seen biir émission kër gi àllarba bu nekk 10 euh, 11h30 jëm euh, ci kàttanu yàlla ñu ànd tey ak euh, madame Dramé nekk fële ca route Ngor ba bala ngaa yegg ca station ba. Mhm. rek foofu la nekkee dinañ gis adresse beeg téléphone yi kon ñu dem xool ko dellu si waat. luy ci jaba nag damaa ñëw fii tey ci route de Boamastec entreprise menuiserie de Saloum ñu indil leen macha allah lu mucc ci ay ñoo ngi taxaw ak euh, Mati madame Diagne macha allah pour nag mu décortiquer ñu ay bagage am nag ba xam lu ñu jéggaani la wala lu ñu tëfee Mati madame Diagne maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay ma di la dalal fii ci suñu showroom bi EMS entreprise menuiserie de saalum ñu ngi fii sur la route de Ngor après stade Ngor bi. dama lay laaj ba xam bagage yi loo leen jéggaane la wala fii lañ ko defaree ci biir réew mi. waa rama réew mi ñoo ko defar nii rek comme ni nga ko gisee comme ni la ko sa bët joxee bagage yi yëpp fii lañ ko defaree amul dara lu ñu importé lépp fii la localement fii lañ defaree lépp macha allah. table à manger bi lal yeeg dégg nga table basse beeg yëpp daal lal yeeg ak. salon yi yëpp fi lañ ko defaree macha allah. ay xale yu ndaw ñoo koy def nag rama macha allah ay xale yu ndaw ñooy liggéey liggéey bi. Mhm. bëgg naa nag nga demal ma ci bois yi parce que macha allah gis naa fi bois yoo xamante ni si man ku ne mawul du importer du ma ko gëm léegi nag damaa bëgg nga téyel ma bii nii bii mooy paduk bii paduk la table bii paduk lañ ko defaree bois paduk lañ ko defaree vase bii ngay gis nii bois yi nga naa la. lii yëpp fii lañ ko liggéeye waaw te ay xale yu ndaw ñoo ko liggéeyee. lal bi moom mooy ban bois. lal bii bois ni ñu ko defaree bois naa Zingana lañ ko defaree waaw. yëpp massif tout est massif. macha allah. Mhm. macha allah. Ah, bii nag moom mooy ban. bii nag mooy bété. dañ ko mélange deux deux bu bois lañ jël utiliser ko nii. bii padug la bii bété la. gis nga bété lañ ko defaree. gis nga boo ko xoolee yëpp massif la tout est massif. waa bële nag moom mooy ban. bee moom mooy iroko. bee iroko la waa. iroko lañ defaree lal bee. Mhm. Mhm. mbaa xéewale na fii daa rama ku fi ñëw. di nga kontaan suñuy prix moom xewale na ku fi ñëw moom dootoo ko rek doo ko regretté. incha allah waaw bii moom mooy ban nag bi salon bi moom macha allah bi jongama bii kay jongamawul nànk sax rama. Uh-huh. bii mooy wenge. wenge waa bii wenge lañ koy wax. ah gis nga ni ñu ko defee assorti ko gisoo taabal bi ni mu mel nii. Uh-huh. dañu jël euh, kiiwu bois yi. Uh-huh. dugal ko ci biir. gis nga ni mu aaree nii. ok xam nga lii man bi ma ko gisee damaa yaakaaroon ne euh, kii la. tappi laa ko tegoon. du tapi mooy tapi gazon yooyu. moom lii bois la. lu surtout bois yi lañ jël dugal ko ci nii. ok mu aare nii jongama. Mhm. kuy wàll yànd sa dëkk tëggul. xam nga ne bii création. fii rek la am damaa bëgg ñuy ñëw fii nag macha allah ndax fii nag gis naa fi njariñaa ah, jàng. fii kay moom njariñ la am rama. Ah. fii moom ku fi ñëw. wenge mii day moom doo ko regretté de ci suba ba tey nag xoola ñoo ngi dox ci ci bagage yu baax yi mais dama fay gis bool yoo xamante ni si <laughs> xaw ma ay boolu fruit la xaw ma boolu caagri la xaw ma boolu lan la gis nga bool yi ah macha allah lañ ko defaree comme salon bi ko gisee ne rek mhm. bool yi genre décoration la rek mhm. dégg nga boo defee sa table ba salon bu mel nii sa biir salle jël bool bi rek teg waa gis nga lii armoire quatre battants la coulissante la mhm. coulissante la gis nga nii bois bi mois bi la tudd. dañ ko jaxaseeg zingana bi def ko ay carrelage nii. Mhm. ñoo nekk nii. moom tam xéwale na. fii daara moom ku fi ñëw di nga kontaan. <laughs> ku bëgg bois massif. ku bëgg lu dëgër ku bëgg lu assuré na nga ñëw fii ci EMS entreprise menuiserie la Saloum suñu adresse leen rek la ñu ngi fii sur la dongor de Ngor en face latérale Philippe Maurice suñu numéro téléphone di 77 631 94 77 wala nga woote ci 77 107 46 50 wala tamit nga woote ci 77 337 53. 87 maa ngi woo client ñëpp ñu ñëw nag fii moom ku fi ñëw di nga kontaan. macha allah ku gis tey jii décoration yu jongama yi lal yu jongama yu mucc ci ayib armoire yi table à manger yi salon yi macha allah ngeen gis ba gis boolu sekkeen yi ak njaween yi macha allah. Bois Massif entreprise menuiserie de saalum dama bëgg ngeen bàyyi fépp ñëw fii. boo ñëwee rek di nga kontaan incha allah di leen jox rendez-vous ba beneen yoon. sono mella kanu ne fuɗuɗi diyayeroɓe ni ne fuɗuɗi voilà jaajëf euh, Adja Rama entreprise euh, menuiserie du Saloum nekk fële ci route de Ngor man nee naa leen li ma ci neex mooy lépp euh, dinañ dem atelier ba parce mhm. que soxna si ci boppam envisagé nañu liggéey ak moom mhm. même décoration wu kër gi sax ak mhm. yépp dina ci bàyyi xel waaye nag euh, dinañ dem itam ci atelier ba pour firndeel euh, liñ ne lii ñuy liggéey nii ñun ñoo ko moomal suñu bopp te euh, daan doole nga wax te muy jigéen moom madame Dramé muy jigéen ubbi lu mel nii yaakaar naa ni kenn toggatul léegi bay xaar góor gu la defal ak gu la defalul lii dafa dugg ci thème bi. consommer local la surtout. lii. Hmm. dafa dugg ci thème bi. waaw kii sénégalais bu ko fi bàyyi. waaw dem bitim réew. di fa jënd matériel rek te matériel dong tax. waaw vraiment yor nga jikkoy gileem. di lekk ci garab di xool nga ca des. man de mm-hmm. defoon naa ko fan yee waaye mm. ndax booba dafa fekkul woon ma xamanteeg euh, madame Dramé. Mm. bi mu ñëwee sama kër sax daf maa ree fa tey da ngay dugg boo duggee sa ndong gi ci boppam. Mm-hmm. mooy putax ci biir. <laughs> moo tax mu am solo. <laughs> donc consommé local man li may conseillé. voilà yi. Uh-huh. mooy ñu jàppale ndaw si. waaw bon ci li mu yëngu. ci show rawatina. Mm-hmm. affaire bi ci réew mi lañ koy defaree. Mm-hmm. Euh, nga nga liggéey alal ci sa réew. consommé ko ci sa réew. mu law ci sa réew. mën naa suqali sa réew dafa neex. am na solo. ñu koy jaajëfal bu baax a baax waa showroom bi ramaloo ci sànni une minute rek. waaw ci li nekkoon. di jaajëfal madame Dramé bu baax baax di jaajëfal surtout euh, tonton bi nga xamante ne si moom a boole ak moom. Mhm. muy moor Yombale nekk ca Pikine macha allah. di mhm. ku baax. moom danañ ko fekk di samay doom ba dinañ ko fekk ji incha allah na nga ñu xaar dinañu ñëw. waaye nag damaa bëgg ñëpp nag di jënd ji foofu bagage. parce mhm. que macha allah la ma fa gis. man yëngal na ma ko bi ma duggee dama yaakaar non yëngal na ma man bëggatuma bëggatuma samay meuble fi mu ne <laughs> fi ne kay nee naa papa fee rek kenn bëggatuma <laughs> jërëjëf ñu jaajëfal ko bu baax a baax jox leen rendez-vous incha allah mercredi prochain euh, ci seen rubrique euh, luy jaay ci jaba ba tey képp ku bëgg a participer ci émission bi <laughs> nañu woowagum rek euh, ci 77 534 91 85 su ko defee danañ la fekk fa nga nekk filmeel la sa produit génneel la ko waaye nag ci njëkk yoo xamante ni daal amul benn télévision booy dem ba mhm. fekk ko fa loolu moom faaw ñu leeral leen ko dëgg la mhm. njëg yi moom amul benn télé booy dem ba fekk ko fa njëg gi ñuy jaayee lii mhm. wallaahi azim amul donc euh, <laughs> nañu woote ci 77 534 91 85 su ko defee rek euh, ñu daal di leen fekk fa ñu nekk du ñu déplacé wu du ñu def dara moo xam nag tailleur yaa ngi ñëw koor gaa ngi ñëw jaaykatu tissu yi jaay bijou yi jaaykatu dàll yi jaaykatu greffage yi jaaykatu marmite yeeg fourne yi. jaaykatu ordinateur yeeg euh, portable yi. légumes yi sax jaaykatu légumes yi. waaw ventilateur yeeg euh, frigidaire yeeg yooyu. lépp a ngi ci biir borom ñoom seen. xam nga dañ naan lépp a ngi ci biir dox daje. te comme jaba la ñu wax moom jaba lépp a ngi ci biir. waaw li ma wax keroog rek. xam nga danga ni luy jaay ci jaba ñu ni banaana ak sanaana ak san. waaw yàpp xar yàpp nag yeeli bote. waaw ah waaw. waaye tarkaal la damaa bëgg rek daal. c'est que xam nga lu ma jaaxal man ay tur yu garaaw laay ay tur yu garaaw yu yàgg yooyu nga xamante ni dara du ko dindi de xam nga jaba am na <laughs> am na ordinateur am na ventilateur am na frigidaire ba pare nga teg ko nga jox ko ko yàgg nag waaw ndeysaan <laughs> li muy wax ni ma wër la li muy wax ni dañ ciy fàttali ku du jóg waaw moo ko daan wax daan wax luy jaay ca jaba waaw nekkoon euh, ci rajo Sénégal waaw nekkoon nit ko nga xam ne vraiment liggéey na lu bari ci réew mi mm-hmm. mais luy jaay ca jaba bi waaw damaa gëm ne luy dox la. macha allah amin incha allah borom laadum yi nañ ñëw. ndax kër gi ñu tànn dugal ko fi. waaw maanaam ci émission kër gi. waaw c'est très suivi. Mhm. alhamdulilah da nga ma invité semaine passée. Mhm. vraiment àdduna bépp woo nañu ma. rafetlu waxtaan wa dëgg la ma xam ni kër gi bu heure bi jotee ñëpp a ngi ci biir kër gi di ko bàyyi xel yàlla na fi kër gi yàgg allahuma amin allahuma amin insha allahu taala te am nañ ci rafet njort yàlla dina ko def ndax yéen ñi ñuy àndal yéen a ngeen ñu ko te yéen ñuy ñaanal mm. kon yàlla dina ko def bu baax a baax ñu dellu siwaat nag ci li nga xamante ni ca la ñu nekkoon yaakaar naa ni ca la ñuy jeexale mm-hmm. euh, ci yërmande gi nga xamante ni moo war a am euh, mm-hmm. ci euh, diggante góor ñi ak jigéen ñi mm-hmm. waaye wax naa leen ko góor ñi moom tey moom du ma leen faral benn yoon ki semaine yi ma jël jafe jigéen ñi rek dafa metti mhm. wallaay rama doom dafa metti lool nga am ci ñaar ba ñett ba ñeent mhm. ñu xëy sànni la junni te naan daan nañu mhm. añ ak réer ak ndékki ay ko dugg marché xam yow xer nga de dama ne xer nga wax léegi naa leen bàyyi yéen ñaar parce que. dama ni. Euh, <laughs> góor ñi sàngu nee na ma sànq dafa jàkkaarloo ak yow rek nga tiit. <laughs> Euh, fàtte boutique bi bu turu boutique bi. voilà parce que napp na la. waa napp na ma waaw non li muy sama ndijaay waaw dangaa xër dangaa xër. waaw <laughs> dangaa xër. waaw ndax bari na jigéen ñoo xamante ne si ñooy mottali dépense yi. am na ci kër yu bari yoo xam toggatuñu reer parce que seen dépense. reer seen dépense waaye li ngeen di wax dafa ay bay mat xanaa gisoo cere jeeg fonde ji ni mu mel ci mbedd mi mani <laughs> góor ñu bari waaw ñu ngi ci ay tolof tolof mhm. jigéen moo leen ko yóbbee lu mu leen ko yóbbee da takk jabar mu am ci yow yaakaar c'est que nii la mel nag waaw te mm. doo ko defal dara te moom defu la dara waaw te gis nga jigéen bu la deful dara waaw nga bëgg ko toroxal bu soobee yàlla bala ngaa dee di nga ko gis te boo moytuwul sax euh, sëy mbir dara da ci du leer laa la wax parce que yàlla moo ko boole ak yow mm-hmm. dénk la ko ne la dëkkool dëkkal ko dëkkoo ko wodd ko mm-hmm. dundal ko mm-hmm. nga jël yooyu bañ ko def te ndaw si defu la dara billaahi bu toogee fi mu war a toog doomam dina ñëw di def li ci war lépp te boo xefee yow muy borom kër gi doo ko fekkee dëgg la waaw muy lu am solo mm-hmm. waaye dafa am boo xamante ni moom ngeen mokkal moom la ñu mokkal léegi gis nga dëkkoo gi ñoom mm-hmm. dëkkal gi mm-hmm. mën nañ ne eh boo amee foo ko def baax na boo amul foo ko def baax na euh, dundal gi boo amee jox ko boo amul euh, bàyyi mais dëkkoo gi sariya bu la jabar sa jabar boo ko tegee loxoom bañ sariya da koy fanaanee rëbb yow xanaa sariya da laa rey ci bëccëg bi dëgg dëgg dëgg yàlla bala mu ko rëbb guddi gi yow rey na la doo fekkee fu ñuy tegee loxo wallaahi ah, parce que xamul tax lekkuma mhm. naanuma soluma dégguma wax bu neex teguma la bët ba guddi jot nga di ma teg loxo naan ba guddi gi xaaj dugal ma foofu ba guddi gi xaaj wala ba fajar am docteur léegi foog ba guddi gi xaaj wala mu wala wala ba fajar waaw ba guddi gi xaaj wala fajar wallaahi joxewoo dara joxewoo dara dara xiif ba ne ca biir xiif mu yëngal caag rek soom naan mbaa mu yëngal fonde na xam nga lan la kenn mënta naan fonde du naan da koy jox mbaa nga naan waaw wala nga naan caag rek bëgg xool ba bët set de dee ci guddi gi ngay mënta ne kon il faut góor ñi jàppale jigéen ñi hmm. dañ ne dooley jigéen góor dooley saxaaraay dooley jën ndox waaw dooley jën ndox hmm. yéen yéenay suñuy doole hmm. waaye bu fekkente ni si da ngeen ñoo takk ci farata yàlla ak sunna Muhammad ñu bàyyi suñu lépp waaw dëddu nday dëddu baay. Mhm. ñëw ànd ak yéen jàppale leen mhm. jàppale leen ñu te yàlla tax. Mhm. waaye góor ñoo xamante ni si xam nga sànq dama laa dégg nga ni waxuma ki amul. man mi waxuma ki amul. mais dañ koy yor dañ koy yor soxna Mbayang. waaw damm ko ci seen poche génn di ko doxaane. ay xale amuñu ba jekk. te loolu dafa metti amuñu amuñu nee naa man terewuma jigéen góor bu dul doxaan. waaw terewuma ko parce que mënuñu koo tere. mënu fee jug. ndax góor moo weex bët waaye nga teg sa jabar palaas mhm. tegal sa jabar place mhm. surtout jox ko cër te bala ngaa jox jigéen dara joxal sa soxna ba pare jox doom ya nga xamante ne si moom ngeen seq surtout ki la jàppale ki la jàppale ba nga mhm. fonde dara am na ñoo xamante ne bu ñuy dugg ci yow yàlla kese tax wallaahi boo demee ba jekk fàtte nga leen te loolu jigéen ñaa ngi koy jànkoonteel ci biir kër yi ak mérito ma dama mas a dama mas a gis sama benn magu jëkkër ma koy nuy au passage bàyyi ma maa ngi koy nuyu bu baax a baax mhm. fajar dafay faral di dem ay kayaar ak yooyu mi ngi dugg ci oto bi mu ngi dégg ay jigéen ñuy waxtaan ke euh, ndaw si di wax ne jëkkëram daf ko mere parce que daf ko sàkku démb mu bañ te mhm. booba il julleeguñu fajar mhm. ñu ngi ci oto yi pour dem euh, wuti jën nee na bi ñu toogee ci oto bi ndaw si expliqué loolu waa ji moom day xaar ba mu yeewu dina fekk ndékkeem ñu teg ko fa mhm. tegal ko fa ndox mu sedd mag léppam mu naan ba pare dem grand place ba mhm. yendoo dam ba añ jot xale yi woo ko ne ko ñëwal añ mu añ delluwaat dam yee ji waat fu añ bi jóge madame mi ci madame mi ci quatre heures matin kayaar moo joxe añ wut na ay jëni démbam ba teg boo de ca ñeenti téeméeram pour dépense du fi jeex yaa nga ca dam ba toog da ngay sàlloo munuma parce que jéem amatul ñu bari jéematuñu Mhm. démissionné nañ bu yàgg yàgg yàgg yàgg li ma daw daw naa ba dee mënumaa fexe ba am kon damay toog noonu luyaas bi dam xale yi ma dam dund bi ma dam mu nekkee ca noonu muy daw rek bi mu ko waxee ne ko bi ci guddi nag damaa sonn bi ma ñëwee mu teg ma loxo man mbañ mun naa maan malaaka yi dinañ la fanaan rëbb sama mag jëkkër bi daf ko ne yaayey kenn rëbbu la fenn <laughs> kenn rëbbu ko ma xanaa buñ ko rëbbee moom bëccëg bi dañ ko rey <laughs> bëccëg bi dafa dee ba pare jigéen ñi sonn nañ gis nga buñ dee jël point par point wallaahi dinañ ko tasaare jigéen ñi sonn nañu te nag ñun amuñu lu dul yéen mënuñoo tàggali ko yéen gis nga Mbaye mënuñoo ñàkk sayeeg yéen kon yërëm leen ñu dama lay wax rek waaw man day sama xolu bopp laa xam mais gis nga képp ku yor sa jabar te yërëmoo ko mm-hmm. wallaay boo moytuwul di nga dajeeg lu la gënal lu mm-hmm. sa jabar man na la tooñ sax ah, nga nga gedd ko waaw mais yërmande ba ne fa mm-hmm. dëgg la nga di ko jox dépense di ko di ko di ko di ko lu mu loo yëg ci moom jàppale ko ca mm-hmm. mais bañ a lekk alalam mm-hmm. alali jigéen du pour góor alali jigéen pour ay waajuram la ak ay doomam bu dee am na ay doom ak boppam mais alali jigéen mm. du pour boroom këram déedéet jigéen loo am bokkal ak moom. Mhm. lu mu am bàyyil ak moom. man loolu laa gëm bokk. Mhm. mooy li war a nekk. te wallaahi boo ko fasee yéene. waaw di nga am ba yóbbaale ko yóbbaale bokkam. Mhm. te muy lu wóor. waaye nag yor sa jabar di xool lu mu am ak lu mu amul. di xaar desu na vraiment nag am am bi itam ndaw si na fexe ba di ko jëlee fu jub te baax. kañ ngay teggi. waaw sa natt bi xoolal gis naa góor goo xam dafa mere jabaram ci teggi natt mm-hmm. natt boo xam ne mosu koo mosu koo mosu koo nattal mm-hmm. mosu koo nattal mu teggim nattam defar ci néegam mm-hmm. def ci lim ci war a def lépp mën naa ne njoñal ko cay ganaar dem peese ceeb mënu caa jënd saaku ceeb waaye dafa peese ay dafa peese ceeb jënd ay niinalam def yëpp indi ca biir kër ga waa ko mu jàppale du jëkkëram ah, borom këram da ko ni lan moo tax joxoo ma ci xaalis bi bu ma yoroon jox la waaye xam nga ne yoruma joxoo ma ci xaalis dangaa bon mere ko ca te mu jàppale ko ci biir kër gi mhm. mën naa ne yor dépense sax une semaine mhm. kooku kon xam nga ne jàppale na ko waaw mais dafa am góor ñoo xamante ni si li nga wax rek mhm. dañuy jël ñoom seen bët teg ko ci seen alali jabar loolu du yoon mën a xaste surtout mën a xaste mbayang waa ji wax na ko sànq sama vidéo bi ma doon nee na jëkkër yii ku ko yàlla dénk musiba dal na la mhm. jëkkër ju nay mhm. jëkkër ju bëgg weccit mhm. jëkkër joo xamante ni jëkkëri wat bang la de xas guddi ba bët set loo ma wax ma delloo la ko loo ko wax mun la delloo ma maître maa ngi ni toog baat bu ñëw ba beneen dellu ñaaw làmmeñ ñaaw làmmeñ boo waxee moom seetul ni danga am ak moom ay mbañarus dalay da toroxal ci say kanami doom wala mun la buntu baa ngi nii bunt baa ngi nii ah yaa fi bàyyi sa bopp. te bala maa dee ñuy ñoo xamante ni si dañ naan la yaa fi bàyyi sa bopp. ak wàcc naa la gudul jeex. rama bala maa dee ñuy jógee waaw. demaat ci seen ndijaay te naan tayuma ko. damaa bëgg loo xam maa moom ak dama lay wax rek xam nga loolu ñu naan ñuy jàngu mbaa naan sa doom yi duñu tekki xam nga olof ma ne sa doom yi duñu tekki ak a metti ci xolu way jur doom yooyooy tekkeek jàmm mbayang ay wax a ngi ci àdduna yoo nga xam ne waaw yu mat a fonk la mooy diw ab seer la mhm. ab seer mm. mooy yor jigéen mm. ba mu sàppi ko mm-hmm. mu defe ku mu gis defe ni kookaa gën mm-hmm. dëgg la dafa war a xam ni jigéen benn la kese ci kartanu yàlla sunu mm-hmm. borom moo leen bind ñoom ñëpp lépp benn la li nga bàyyi ci kër gi mm. foo mën a dem moom nga fay fekk mën nga ko fa fekk nag tuutal fa ka nga yor ca sa kër te du la jariñ dara. yow yaay tuuti boo jëlee loola indi ci kër gi te yor xel mi nga yor. Mhm. bu fa toogee lu toll ni kafa fa jiitu woon lam fa toog. Mhm. dina la soof na la kooka soofe woon. Mhm. te boo ko defee dinga nga wër àdduna bépp te doo jariñ. man daal. waaw li ma mënta muñ. mooy. mooy jabar joo nga xam ni. Mm. boo nee wër mu ni wër waaye bu ma wóoree ni yaa ngi toog fi nga war a toog toog fa na nga fa war a toogee ay naqari deret ak yooyu sax man toog toowu wallaahi waaw dama am sama benn paa boo xam ne vidéo bi nee na jabar day neex a localiser kay waaye foo nekkoon moo karamade laa waxoon la fa laa jëm waaye damaa génn daje facile la mu ne ma naa na ma fële Tëngéej ma dem fa jóge fa jaar kër Awa Dieye mbaa nga euh, mbaa nga mbaa nga bàyyi ko fii mu toog nga ni wër mu dugg ca fa mu dendal. gaaw tàgg ah yu demee noonu. gaaw tàgg surtout tàggoo jigéen aussi dafa war di tàggoo. waaw li nga wax léegi rek jigéen dafa war di. dafa war tàggoo boo jëmee fii nii foofu laa jëm. Rama dinañ ñëw ba tey ci cadre jigéen parce que semaine prochaine wax naa leen fi mu nekk nii ñu ngi ci lancement quinzaine de la femme. Mhm. dañuy jël delloowaat lépp jigéen ñi ak seeni i liggéey ak seen i activité. Mhm. incha allah dinañ ci ñëwaat ci yeneen émission waaye nag euh, dama bëgg nga ñëwal ma ci góor gi nga xamante ni voilà temps bi jeex na may leen ma une minute <laughs> Euh, dafa am loo xamante ni góor da koy ndamoo bu nee jàkk jabaram xool xam ni ñëpp a ngi koy bàyyi xel mm-hmm. ndax macha allah mm-hmm. mais am na góor ñoo xamante ni bala ñoo am lu leen neex sentir ne seen jabar a ngi jooy seen fii def nay sàq wallaahi boobu bu ñu sangoo saabu përngal ba réer fa góor ñooñu loo leen di wax ñi dul tiitaroo seen jabar bari na parce que fitnaal ko mu jeex looloo lay neex wallaahi bari na dafa fanaanee jooy gisoo ba bari na ñëw dafa lu tax loolu man xaw ma lu waral loolu mooy te jigéen yëpp benn la waaw dama ne la góor gi ci gën a muus waaw mooy góor gi mën a tëye gën a mën a tëye jabar mm-hmm. mooy góor gi gën a muus mm-hmm. jaajëf gàtt na waaye koo ko wax xolam sedd dëgg la gis nga boo nee jàkk sa jabar mm-hmm. mu defar la lim la war a defar lépp boo ko ne sum kontaan naa bu toggee sax nga ne ko laay laaxi walaay yaay ñor yaay bi sa ceeba neex li may lekk ci fii mësuma koo lekk fenn day gën a góorgóorlu am na solo waaye di xool jigéen waaw muy jooy ay mbari mbari bëtam yëpp yàqu mu di la neex mu di la neex nga naan sim kii rëccu naa lu ma doon dugge ci moom te yaa ko teg li tax mu mel noonu. te jabar ordonnance ba nga koy takk sa jour mariage nga ne jàkk sa jabar ay jigéen ni jàkk sa jabar góor ña ne jàkk sa jabar xam ne lingeer lañ la may. Mhm. am na ñoo xamante ne si dañ leen di may lingeer mu fees del mm. nga indi ko ci kër ga soppi ko njaago muy fóot di fayu. moo ah, billaahi te da leen di neex. <laughs> Eh, fa la ñuy jaaree tàggoo li nga wax dafa am solo jabar da nga koy tagg. ñoru ñaam bi waaw wala yaa mën a fóot yaa mën a paase yaa mën a bale yaa mën a ceeb yaa ñor yàpp yaa fere guro dëgg dëgg buñ ko dee dégg dañuy soxaliku waaw dañuy oh, oh. soxaliku di gën a kontaan <laughs> dañuy kontaan man daal li may tàggoo uh-huh. mooy ngóor ak góor waaw maanaam li mu war a def njàmbaar waaw mooy jabaram mu jox ko mu lekk ba suur waaw dalal xelam ba ku ko gis nawloo ko waaw loolu daal man laa gëm mm. ndaw si itam am ngor te mm. xam ni kii mi ngi lay toppatoo nga yem fi nga war a yem mm, yal nañ ci yàlla dimbali allahumma amin amin euh, rama lan ngay tàggoog mbokki téléspectateurs yi jox leen rendez-vous waaw di leen jox rendez-vous ba beneen mercredi incha allah waaye nag di leen wax góor ñi nañu def ni chef Mm. tubaar fa kàlla macha allah si sengaari njar meew tëmbal galaas xobi lem mm. gis nga sama góor googu mm. dama koo naw barke Mouhamed dëgg la kooku lu mu am jox la te loo yor mu ni la tëyal très bien bu la fekkee ci liggéey suqali la tubaar fa kàlla macha allah ba nga suqali ko mm-hmm. kon mm-hmm. góor ñi damaa bëgg ñuy def noonu di jàppale jigéen ñi te yàlla tax jigéen ñi ñuy muñ di mm-hmm. góor lu di sëy di jàppale seeni borom kër ndax ku la bëgg da nga koy bëgg te nag say neexul nag <laughs> benn say neexul ah aimé it neexul émenté moo neex kon yal nañu yàlla defal ñuy émenté ñun ñëpp di gën a émenté sama góor gi macha allah uh-huh. njaari njar meew bu dul yow du keneen waa maa tey <laughs> yaa tey ndeysaan euh, may jaajëfal bu baax a baax mbokki téléspectateurs yi ñu doon seetaan jaajëfal sama rakk ji Babel Demba ak borom ne ni waas ko ni rey borom Euh, tubaarkàlla macha allah defal ma nii di sës ci man rëkk te du ma rëkk mooy ki nga xamante ni borom këram moom lañu ñu faatoon foofu ci Espagne. rakk ji maa koy ñaanal yàlla bu baax a baax yàlla na ko yàlla may jàmm. Euh, may ko xewal ubbil ko bunti liggéey nag. Euh, sëy bi moom waxaguñ ci waaye bunti liggéey ba ca kanam yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla defal Babel dembaak ak borom ne niwaas yaay Coro Njaay bi nga xamante ni gisul baayam benn yoon jaajëfal nag ki nga xamante ni maa ko naan ñàkk sikk alias soxor loolu noonu parce que bu ko tuddee dafa may dóor Euh, maa ngi koy nuyu bu baax a baax euh, depuis Espagne moom itamit euh, wax dëgg yàlla ku ma xool xam ni nag damay bàyyi sax fonde groupe ak cere yooyu ndax bëgga a delluwaat ndax <laughs> këram rek a neex te nee na ma dëkkal koo indi mu dëkk say bokk nañu dëkk te lu la neex defal duma la laaj dara kon donay Ali de ak Alison yàlla na sa jàmm yàgg Maram Ndiaye ba suba ñu dellu siwaat ci kàttanu yàlla asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa fi amaanilaa laa jàngeen jëf sama gars <laughs>